saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye ma ñetteelu année blanche di yoot moom le lion de Guédiawaye la sunu làmb xëy fësal ci xët wu njëkk wa daal cay toftal après 2015 2016 2016 2017 Balla Gaye boo moytuwut ci 2019 2020 la jëm gannaaw ba mu toogee saison ci 2019 2020 Balla Gaye du bàkku Balla Gaye 2 vers ba xamle bi saison bi dooga ubbi ñépp njortoon nañ ne Balla Gaye 2 dana tooyal xaftaanam a ngi Boy waaye bile combat lu ñuy gën di dox muy gën di sori taxaw bile combat ñàkk taxaw la gën a jege ka taxaw bu dee diggante Balla Gaye ak B52 Tafatine wala Gris Bordeaux dara leeragu ca ñett ñooñee ku ci Balla am jël waaye Balla gisagul avance gannaaw ba mu bëree le 13 janvier am ndam ci kaw Modou ba léegi moom Balla Gaye kenn gisaatu ko ci arène bi boobee ba léegi Balla bëree waatagul te boo moytuwut ci saison boobee da koy année balance moo yàq bile combat bile combat ñu dippe woon le di jolof waroon am foofee ca stade Cheikh Tako Koumé ca Linguère dàq nañu ko ba jëmmi jamono ka ko dàqlu mooy le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ba noppi nekk maire bu Linguère la mu xamle mooy jàngoro ji di coronavirus moo tax am ndaje duñ ko amal ci Linguère njiital Kapi Production Yaba Ndiaye ma tëgg combat ba la mu xamle mooy dëgg la combat bi dootul am ministre bi moo génne communiqué yi nekk ci région yi bu ñu ko dooree Kumba Arène Fall président CRA bu Diourbel moom la mu xam ne mooy ñun 5000 francs képp la jot ñun waa CRA bu Diourbel lu weesuut junni jotuñu ko bu dee Laurent Diouf CRA bu Kaolack la mu xam ne mooy combat bi yàgg naa ko sàkku yàgg naa sàkku ñu xeex ngir ñu respecté ñu bu dee ci Dakar 70 pour cent des droits d'organisation la arbitre yi di jot waaye bu dee ca Kaolack 40 pour cent la ñuy jot Maysa Ndiaye may président CRG bu Thiès la mu xam ne wala mu njort ne arbitre yi danañ xalaatu ko woon li nar a bett ñépp mooy la a tukkee CNG nar a auditionné arbitre ya les juges des lutteurs face aux juges du CNG loolee journal ba xamle samedi ci 9h la CNG convoqué ñenn ci arbitre yi ku ci mel ni Babacar Diop Sitor Ndour Aboubacry Dramé ak Malick Ngom ñooñee la ñu fas yéene leen a bu dee Babacar Diop arbitre ba la mu xamle mooy ñun jaaxle wuñu jomme wuñu suñu jàkkaarloog CNG samedi moom baat ak tontu képp lay doon bu dee ci combat bi war dox dimanche ci diggante Bébé Saloum victoire 5 défaite bu franc daanee dugg ci 9e victoire bu bébé saalum daanee dugg ci 10e victoire jërë ngeen jëf mbokk yi li moo fës ci etu yéenekaay leen jox dig daje ëllëg incha allah